asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe seen mbokk Ahmadou Hanbal Sougou moom sëñ Maxtaar Sougou xalifab sëriñ Njéeri moo leen di nuyu bu baax te di leen siyaare di jiital ci nuyoo yi ak siyaar yi sëriñ Muntaxa di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér di ko ñaanal sëriñ Maxtaar lool te indi ay leeral yu gàtt rek yu jëm ci xew-xew yi fi amoon diggante njabootu sëriñ Jéeri Wadaan ak njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall waa kër sëriñ Jéeri ñoo jotee ak njabootu maam Cheikh Ibrahima seen diggante jàmm rek moo fi mës a dox aw yiw rek moo fi mës a dox teraanga rek moo fi mës a dox danaa ci nekk li benn rek sëriñ Jéeri bi mu nekkee ba dogalub surum borom bi wàcc ci moom daamar ji nga xam ne moo ko jëlee njaareem indi ko Touba ci dëkk bu tedd bi maam Cheikh Ibrahima Fall moo ko wutoon te loolu kóllëre bu yàgg la woon ca njàmbur ñu ñëwaat ci atub sëriñ Touba bi gën koo dëgëral gën koo fetli ñaari njaboot yépp di ko suuxat ba naga jàmm rek dox seen diggante ak sutura ak teraanga kon lan moo xew dafa am ku naan sëriñ Sidi Mbacke moom sëriñ Amar Fall moom sëriñ Mouhamadou Lamine Baara Mbacke kooku mooy ki jotee Baye Fall yi leen moo ci indi nag njabootu sëriñ Jéeri sëriñ Sidi Mbacke moom way juróom bu jigéen di soxna Binta day sët ci sëriñ Jéeri waa daan nekk ak kon li war njabootu sëriñ Jéeri ak beneen bu doon sëtub sëriñ Tuubaa beneen bu bokkut ak sëriñ Sidi li nu war. mooy bu ñëwee bëgg a tas këram bëgg a sàggi ab sagam tas daara ja xotti te téere ya ñu taxaw ci wetam sàmm ko aar ko bala ko balaa kenn tas këram wala ngay tas daaraam wala ngay sàggi ab sagam jaar ci sunu kaw ba noppi te loolu jëf jooju mooy li nu sëriñ maxtaar xalifab sëriñ jéeri digal te loolu amuñu dara dara dara du si njabootu sëriñ jéeri di rëccu la amoon bu amaatoon it njabootu sëriñ jéeri taxawaa taxaw Euh, am taxawaay bii ñu am taxaw bi sëriñ Sidi budul woon sëriñ Sidi di beneen sërib sëriñ Touba te nekk ci seen biir it taxawaay bu mel nii rek la am ndax ñoom loolu duñ ko seetaan mukk seen bakkan du ko fekke sëriñ Sidi nag moom yi nga xam ne si mooy sëtub sëriñ Baara di doomi sëñ Amar Fall di sëtub sëñ Baara buñ sàggee ab sagam wala ñu tas daaraam wala ñu def ku luñ ko war def cër bi ci njabootu sëriñ Jéeri am cër bu néew la waaye cër bi ci njabootu Serigne Touba am na njabootu seex Cheikh Mouhamadou Lamine Bara moo ëpp fuuf ndax wolof Njaay dafay wax ne gàcceeg ci kër baay waaye gàcceeg néeg kër ndey kon ñun li si waroon def nañ ko kon ñoom buñ ko seetaanee ñu tas këram eh, gaañ ay dongaam sàggi ab sagam loolu day delluwaat ci njabootu Serigne Touba ak njabootu Cheikh Mouhamadou Lamine Bara ndax ñoom ñooy ñi ko war a fajal. buñ ko defee ñoom la war buñ ko defatut ñoom ñoom la war ñun li ñu ci waroon rek def nañ ko li ci des lépp nag ñoom la ndax sëriñ di moom yi ñu xam ci mooy doomi sëñ Amar Fall nii sëriñ Mountakha di joxe ndigal Baye Fall jamono mën nay dox di dox ba mbir mi ak si moom muy jox ndigal noonu baay Fall kon yaakaar naa ne cër bi ci waa kër sëriñ Touba am cër bi ci waa kër Cheikh Mouhamad Lamine Baram moo ëpp fuuf cër bi ci waara am kon ñu rectifier journaliste yi rectifier rectifier réseaux sociaux yi xamal leen ne njabootu sëriñ Jéeri jote wun woon ak njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall waaye kay li xew mooy njabootu maam Cheikh Ibrahima ñoo am jafe-jafe ak ñi leen dénkoon liggéey bi te sëriñ Sidi di kenn ci ñoom loolu mooy li wér loolu mooy li am waaye njabootu sëriñ Jéeri 1922. bi leen sëriñ tubaa jëlee njareem andi leen tubaa jox leen seen kër gi te booba tubaa matagul juróom-ñaari kër ba tey jii mosuñu am benn coow ak njabootu am benn coow ak njabootu ak seexi sëriñ tubaa te loolu ci la njabootu sëriñ jëri fas yéene sax ba faw danaa ci nett li benn xissa boo xam si sëñ Abdou dafa am ay kilifa yu doon xuloo am lu ñuy xëccoo ba ñëw ci moom biñ ñëwee ci moom mu ne leen xanaa xool leen ci waa kër sëñ Njéeri Waadaan yi ñoom de bu yàggu rek lii dal na leen te xëccoowuñ ci xuloowuñ ci xeexuñu si lu rafet loole sëñ Abdou Lahad waxoon si ñun ak exemple boobu mu jëloon te yoon wi yaatu lool waaye jëlu ko ci kenn xanaa jël ko si ñun incha allah ci lool lañ fas kee nekk ci loolu lañu sëñ Maxtaar digal ci loolu la ñuy nekk ba faw duñ ci jóg mukk duñ fi am ak kenn jafe-jafe insha allahu rabbi léen di ci topp na danaa ko leeral tuuti rek dégg naa Cheikh Mouhamadul Basir wax ko dégg naa it ñu baree bari ci njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall wax ko mooy sëriñ bi bim leen dénkee liggéey bi lu mel nii moo taxoon ñu kër bunt këri sëriñ Tuubaa yi bunt këri Cheikh sëriñ Tuubaa fenn fa ñu dem fa waxtaan a yow ba bu ëllëgee benn jafe-jafe du am ma leen di xamal ne wax jooju siiw na lool waaye sëriñ Maxtaar mi nga xam ne mooy xalifab sëriñ Jéeri ndaw yooyu agsee gun ci moom ba nëgëni gisagu leen ak njaboo tamit ten sës si moom rek bi xam lépp lu xew yëgagun ko ñoom loolu ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy xamal nit ñi teewul nag sëriñ Maxtaar di rafetlu jëf jooju nga xam ne waa kër maam si xarafaal jëf jëf nañ ko mooy buñ leen dénkee ab liggéey ñu waxtaanee ko ñëpp. lu rafet lool loolu la ñuy séentu si ñoom loolu ñàkk gun ñàkk ñëw ci moom téewut mu rafet la ko bu baax a baax a baax téewut mu leen di jàppaleel ci liggéey bi bu baax a baax ndax leen war ci Touba loolu rek moo ci war njabootu sëñ Njeri mooy sàmm dëkk bi aar ko ndigal leen sëñ Mountakha jox njabootu sëñ Njeri taxaw seen wet jàppale leen si kon yooyu leer rek lañ doon leeral wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu